jamono jii tembe nag ñu ngi fii ci bàmbu borom daal moom ci daal moom ci màggalu maam Thierno Birahim dama daal moom fii ñu nekk nag kër Serigne Cheikh Abdou Mbacké moom Serigne Cheikh Abdou Mbacké nga xam ne lu yàggul na fi bàyyi ko ñu ñaan suñu borom yokk ay leeram daal ñu ci barkeem mu nekkoon jàmbaar bi am solo la Alaaji Daara Cissé moom Thiénaba doon wax mu ne ba fi baax bàyyi fi lu baax ak gën bàyyi fi lu baax ak gën ndax boo fi bàyyee lu baax te boo lu baax lu baax loo fi bàyyi woon ba yàq ko donc nag bi Serigne Cheikh Khadim Mbacké demee bàyyi fi lu baax waaye bàyyi fi lu baax ñoo xam ne ñoom ñooy sàmm li nga xam ne loolu lañ jëfandoo te jiitu ca boppam di Serigne Cheikh Khadim Mbacké bi nga xam ne moom doog ak doog a yëngu suñu wëytu suñu xarit doon koo xam ni ñëpp ràññee nañ taxawaay ci màggalu daal moo leen da ciy amal programme yu am solo bokk na ci conférence bu mag boobu nga xam ne saa su màggal daaru moo ñëwee ba ci ngoon bi dajale borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon waaye ay borom xam-xam ci benn barab sax ñu mën a bu jafe la waaye suñu borom may na ko euh, loolu nga xam ne lu jafe ñu bari tabaarakallaahu ren nag ak coppite am ci wàllu programme boobu la ndax ginnaaw tàkkusaan la daan doon waaye nag ren ginnaaw timis la fa yéenee doon kon nag ñiy toog ak sëriñ bi xam naa duñu guddal kàddu yi barkeeloo rek ci bis bi incha allah kon sëriñ bi Touba Argentine TV ñu ngi lay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Arouna ñu ngi leen di nuyu lu bari di sant euh, Touba TV Argentine euh, di nu siyaar ñoo fa nekk ñëpp te xam naa ñoom ñu ngay waajal màggu daaru si ni ñu koy waajalee fii. Euh, bis bi nag eh, suñu aaroon day bis bu rëy ci ñun ndax day bis boo xam ni suñ tubaa ko tànnal maam Thierno ndax suñ tubaa moo tukki woon ñibbi si di dajeeg maam Thierno dénkoon ko njaboot gépp bi muy dem ndax suñ tubaa moom bi muy dem njaboot gépp ci maam maam loxol maam Thierno la ko tegoon waaw bi suñ tubaa demee ci tukki ku fi nekk rek ci ordre maam Thierno nga doon dox yàlla dogal nag la mu dénkoon maam Thierno mu dem ba ñibbisi dajeeg moom ca ndénkaan la dara yàqu ci loolu mooy sababu bis bi tey e, kon màggalul Tuuba demuk sëriñ bi la ñuy màggal waaye nag màggal daaru ñibbi si sëriñ bi lañuy màggal ndax Sëriñ Fallu moo ko tànnal waa Daaru Musi wax leen ni mbégte mi am ci diggante sëriñ tubaa bi mu jógee ci géej gi dajeeg maam Thierno la mu ko dénk dara yàqu ci màggal bis boobu lu ko ëpp solo amul loolu moo waral ndaje e, màggalu tey. Euh, ñun nag euh, ci sun jëm bopp itam ñu amaat ci beneen bis di ci màggal Baye Cheikh Khady ndax Baye Cheikh Khady wutal ko bis dañoo jël bisam boole ko ak màggal daaru mu nekk benn bis kon ci bisu màggal daaru ci la ñuy màggal Baye Cheikh muy ñaari événement euh, beneen bi ci des itam ñu fii def ay waxtaan yoo xam ni mën naa bii mooy fukki waxtaan ak ñeent yoo xam ni ñu ngi ko doon def ci sama kër fekkee nga ko ba taay ci jamono yi boobu Baye Cheikh a fi Eh, at mu jot itam dañuy seet rek li li dëppoo ak jamono ji eh, ñu waxtaane ko eh, bu ñu koy préparé itam ay borom xam-xam yu bari ñooy daje ñu toog di waxtaan di waxtaan ba dëppoo ci lu ñu war a waxtaane soog koo def suba itam ñu fas yéene waxtaane gannaaw timis ci kër Serigne Cheikh Khady li xew ci réew mi dañ gis ni tariixa yi indi na ak jaxasoo yu mag ci élection yu weesu ba sutura suñ borom moo ci dugg waaye kon ayu métti mënoon naa am Sénégal te jóge ci diggante tarixa ak tarix te xamuñu sax mba xam ñay indi eh, eh, musiba moomu ndax ay julli lañ sax wala déet waaw loolu lañ fas yéene waxtaan suba ci kër Serigne Cheikh Khady leneen itam ñu ciy sant yàlla rek eh, bi ñu bokkee ci njabootu suñ Touba bokk ci njabootu ba borom daaru rawatina itam suñu borom tànnal ñu ñu bokkati ci kër Baye Cheikh Khady loolu lépp nag ñoo ngi koy sant suñu borom di ko di ko sant itam ci xewal gi ñu may itam ñu fekkewaat màggal gi ndax eh, bu ko neexoon duñ ko fekke mënoon nañ ko fekkee te duñ ko tal eh, condition yi yëpp nag dajane eh, fekke nañ ko may nañ ci ay xéewal kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax di sant ñëpp nag di sant seen taxawaay te fas yéene suba conférence suba ñëpp bàyyi ko xel te te ko te déglu Eh, bis bi itam ma amaat ci keneen gan gu rëy muy Serigne Mahamadan moom Serigne Abdou Lahat xam naa su paree ci xewal yi eh, dangeen ngeen moom mu sànn ci ay kàddu ñaanal nit ñi ñu dem ba suba waaye Serigne Mahamadan moom it dafay kenn ci man eh, ndax bis bu ne nee suba la màggal daara fekkee nga ko ba tàyyi fii daf ma ko jagleel di reere si fii muy ab cër boo xam tam may na ma ko ci boppam ma ko ci sant nag bu baax. di ko fekk di ko feddliwaat sama kóllëre ak moom ndax lii itam euh, rëy na te itam ñi koy defal bariwut te itam gis naan saa yu jëm see ci man euh, pas-pas la fi ñëwee ak mbégte maa ngi koy sant bu baax a baax sant itam rakkam suñ Basiiru Abdou nga xam ne rakkam ak xaritama nga xam ne sama wëllëre ak moom euh, fu mu àgg rek maanaam ci seen suñ dan la jóge waaw ba si nekk nit ku baax koo xam tam nu ma suñ dan jàppe rek jàppe na ma noonu kon nag maa ngi sant bu baax conférence bi ku ñu wax imam Fadilou Tall moo koy def eh, ki koy modère gis nga ko fi léegi mooy Mbacke si la am na ñaari conférenciers yi ñu associé ak imam Fadilou Tall eh, kenn ki mooy Mouhamadou Lamine Darame kenn ki mooy Babacar Mboup eh, jàpp nañu su paree professeur Lamine Ndiaye sociologue dana fa jël kàddu ak borom xam-xam yu bari na yoo xam ni sax mën na si wax bu paree kenn ku ci ne ku ci am xalaat rek ak noo ko gisee dañ ci sànni say kàddu ñu ngi ci séntu daal ñu ñoo xam ne ay invité de surprise lay doon. waaw yal na yàlla may ñu mën a ñëw waaye seen yéene mooy loolu waaw jërë ngeen jëf ñooy sant ñëpp di gërëm ñëpp de di nuyu suñ Fallou Cissé muy sama xarit boo xam ni xam naa ne loo def ci bis bii rek bu ko yëgee dana ko neex ndax moom yàlla moo ñu bale muy sama xarit eh, tey toujours daf may wax ni ma dénk naa la Arona te li mu wax itam yaa ngi koy doxal bu baax a baax jër ngeen jëf jëf macha allah euh, kon mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ doon taataanee ci Serigne Cheikh Abdou Mbacke ibnu Serigne Cheikh Khady Mbacke mi nga xam ne moom moo fi toog toogaayu Baye Cheikh ñuy ñaan sunu borom gën a guddal aw fanam gën a wéral ay cëram euh, ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko ci naal yu am solo yi nga xam ne Serigne Cheikh Khady Mbacke naaloon na ko euh, te mu taxaw temm ci ngir yeggale lu ni mel yàlla sunu borom woyofal yan bi ci kawam dëgëral ko te kàttanal ko. macha allah kon ñi ngi sant ñëpp su ko defee euh, li ab tàmbali la ci wàllu conférence bi incha allahu Touba Argentine TV dana ci ànd ak yéen ci wan leen image yi ak la nga xam ne thème yu am solo yi nga xam ne moom moo fay balee ak euh, mbokk yu tedd yi nga xam ne ñoo fa yéenee def waxtaan wu nu mel kon euh, Touba Argentine TV Magal Daarul Mawti édition 2019 sant leen gërëm leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.